والأزواج خاتمة والعالم الخالق تغيب مواد من سرنا والآل وسامي والأزواج خاتمة سقمات القراطيس شبيب وتسليد والآل وسامي والأزواج عاقبة حكمة القاقوس تغيب ذات الوقت في البسيطة غير الله معبود من بالحق أنفيت ما للغير موجود أرجو على الإبن يوسف الوالدين موجود الوالد البر يا ما أنسي تخديمه فرد عليه يشكر الوالدين موت الوالد البر يا أستاذ ترميم محمد صفوة ثم أخيارا شارعنا ولعليه خير لا من في تعيين درجنا على الابن يشعر العين موجي من البر يا أستاذ ثم الفرمان من علينا بشيخ والد أفرح من بر عاطف غير العجميد فرد على الابن ذكر الوالدين ومن الوالد البر يا أستاذ منصورنا فإني أبوء بشكر القلب واسطتي وإن عالجت من إيفاب منصورنا فرد على الابن شكر الوالدين ومن ذا الوالد البر لا أستثني فهل في عجزه إن أن عبديه مراتب وابن حاوة في وابن التاج ميسونين فرد على الابن شكر الوالدين ومن الوالد المعروف لا أستثنيه يا نجم عثمان أو يا سعد المريد ويا من عنده نجح والإحسان والمولين فرد على الابن شكر الوالدين وموت الوالد البر يا أستاذ يرميله فضل على الابن شكر الوالدين وانت الوالد البر يا استاذ سيدنا فضل على الابن شكر الوالدين وانت الوالد البر يا استاذ سلمي وأنت أيضا ربي نفسي وصلحها وكان لي منك إرشاد وتأييد فرد على الابن شكر الوالدين وأنت الوالد المعروف يا أستاذ الدين أنت الثاني بلباس فكره زمني خضرا كأني في الأقراء داود فرد على الابن شكر الوالدين وأنت الوالد الموقوف يا أستاذ الدين أرحمونا صبورا يا تبن وحاملا كلنا جنيت بدون ملل الحاج منصور كان سهلا فطن من جاءه بتوت حاجاته مفجل وسلوى واحمد المنصور الكبر لله خالقنا كنت خير بتل منصور كان حمولا صبورا يا تبن الباح وحاملا كلنا من يب بدون ملل وكان سهلا جوادا لينا فطنا من جاءه ذوت حاجاته مفجل ما يعرف من يسلم يب بجاي ابو العباس سيدنا سيد مبول مثل من اقتدى بهم يوم الجزاء داروا إن شاء رب الورى يوليم وخلا نقول والصلح قال العلي خير دفلم وخ ما قال ربي لموذر كدف دفر من الكبيرات من اللي دفنك مباح xanaa mu teeg mépp mbir moo xam mi day ayibal laabal xolam bëgg ñépp lillahi muxtasiban bi jóg kuyit ku ko dog fu mu toll tey rafetal ilahi yaatal ba mënta di muñ fu mu toll tey bañ a tooñ ku tooñ mu baal ko li wajhillahi tey yéwénal ilahi tuyit mu roy melo xayril xalqi shafiina sabran وصفحا وعفوا ميم وخلا ملل صوني ملك ورب العرش يادي كباخ بالكي باليقي ينواني دق دمل اوصيكم اخوتي لله خالقنا من المتد لوجه الله توب ndigal اعطوا الطريقه ين حقا تلب نمت ànd ak wadifa jamaatan te bañ di tayal te teewlu maanaaya wal alfaada soo ko defee moo xam ci mbooloo la am ci wéet la yow sellalal yow li la wax cheikhuna tijaani waa ji defal lii mu la wax ndaxte loo yow mii nga jot sa amal عن الطريقة لا تغفو الأخي أبدا إذا فعلت تنال مناك عبد دفل ولم تشيخ أحمد التجاني مومة وي نين سبتم أهله نين نين أبدي ترل وشيخنا من نياخ سبلين تريل دقل تتب نيجل فولن جزب بجلل نين بجن تبباخ تكن كنت بجل أخاوني لن يوخ قطب الوجود جفل بلن خلو تبلن نالو بكن أيضا ما ممت إخوتي تقلين كل مجن مقدم فوتك يوم يليق جهل نفن كلين تترى اللين ما وخل دفل يا منكر القوم متغيظا ومنكمدا دوب مدن بنا تبعت ولا خبل فلدري kii wax ni tuubaat tiwaawan ñaari dawla lañu fii dawlatin te warul wallaahi koo ko xamul na ngeen ko wax yéen ñi xam na napp moo di la gën mu xam ni fadlal ali moom ca loxoom la newul seen dawla jiitu na tey loo bañ bañit bu fi jóg waxal ba xottiku yaa maluun yaa xëttu xol boole di fag xam ni fal aqlaamu qad rufiat wa jëfati suxfu yow nii soo ma ne toxalal yow doo jullit doo ku kenn xam loo fi doon ba di wax soo bàyyiwul lii nga ne yàllaay ki lay toroxal tubaab tiwaawan ñefeel ak jaamalat canaba kalaatalaayeen wa njaasaan kum ci rek teralal kalaata saaxi ma albaaqina ajmain yow foo bi gis kenn ci ñoom fonkal te bul doyadal jàppal ci lii ma la wax yow saa xarit bañ a ba yow soo defee lii ma wax xarit mu naa ka tanal ba leen di jam ndamle ak di toqale ndax rafetul baynal mashaayixi looli bàyyi leen ko gënul fal awliyaau mu ahbaabu xaaliqina kalaaka rabbuna teyit du leen woyafal teyit ku leen noonu ñoom yàlla di dar ci sa kaw qad qaala daa fi xadiisi alqudsi waa ji moyul ku dal ci seen kaw fa inna allaha aadanahu بالحرب صدق فإن الله ذاك فعل وما الولي سوى من صاحبين نيب تجاب يلا بوير يلا بدون كتفل الحاج إبراهيم سنانا كن سبلن لين تمدل لين نين مسلم تبعي سندر بلن لين يوم مسلل وأوليائي عبادي ليس يعرفون غيري فقد قاله رب الورى دجلل بالولاية يا إخوان كالبوري أو من يوم رفت moo xam ni dees na ko sol du ci dudd mbooloo du ci baay du ci ndey laakin alaamatuwa taqwa gu dara raxul inna alwilaayata yaa ixwaan bët du ko gis قد قاله القدماء يولينا وخلا نقول إن الولاية ينواني أخي فقل تصوم فضل الله عن الإله صل جلبا التقوى العلي تتب أي دلم بتاتم أي ترين فوتل تير فتل إن الولاية ينواني أخي فقل تسب فرل بباخ على الإله تصل والنار يوم بور يوم يجي نتفضر نوت كباخ كل بيت جاني جوخ كسخل جوخ كسنس بنجو يوم عام تنم لدقل شريعة سنة لولد دي ويتي لقل ليبو أمي أما أنت تطلبه من الوصول إلى الباري أخي جمل يا ربي واطلب بنا بالمستوى العالمي سبيله ربنا هذا تيو جفون هذا الحديث لتبون شافعنا بسب عرفة يومي عن الخبير فصل درتي الدري والأموال قال بمر lekk gi ak tuur gi ak ngañ gi lépp daganul di ngeen dajeeg rabbakum yawma fa yasalukum amma faaltum te ji wax rëy ne yow fagarul laa tarjiu baadu kuffaaran axi bu doyul ku wax ni dundit la kookee yàlla moo ko doyul قصيدتي هذه جل إخوتنا بها تنال من الرحمن كل أمل قصيدتي هذه جل بها تنال من الرحمن كل أمل من من على الإله نخمد فكجب تدفع صدق رسول الله ويربة سيد مبارك من أصحاب سيدنا شيخ المشايخ من مولاه ما كفر أبو الفيوض سليل البدر منقذنا من المهالك من مولاه موقظنا قصيدتي هذه أبياتها قعي جنگ ko yow abdullahi wattu ko def ko sa njël kadaaka daaw góor wa mansour maay wa ibnu omar sin fekka ngi kun ci door xetal te bor ji ta jël yaa rabbi ma jëlana def ko ma jëlana wa manfaatan شر العداء والهواء يا رب غيب فدر ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس مع الآل والآل أصحاب النبي رسل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم على الرسل أرتب كي أجزى بنظم علمي
nit boo ne jëlal jàppal te li mu lay jox du lu jëmm istixaaraay am mu ma jaas waaye du doon aqiqa si daaj maali jasawlaana xayran dégg ku ñuy wax jibril alayhi salaatu wasalaam moo daan indil yonente yi ay courrier Maodo nag gëstu na ba xam yonente bu ne ñaata yoon la jibril ñëw ci yow fii ngay xam ne xaj malik kenn du moom rasulullah yi kenn la sallallahu alayhi wa sallam uwud uwud adama nafalat amta fii nu lamar day nëbba toujours temps yi déglu leen xale yi déglu leen tuuti wax dëgg yàlla su ngeen woyut ngeen toog déglu te toujours woyi war ngeen ñi ciy jàppale bu baax a baax ndax bu ngeen di woy xale yi jàppaleen te téere bi benn la wala ngeen xool ko bu baax te ne pat wóot mooy fi ñu jàppal tiilu lamar nag ci arab liñ lay def loolu ne kañ koy defloo dañ koy làq dañ koy asaf maanaam xus jàppal ante yow ante ji Maodo daf ko dindi ba mari muqatab la mustatar daa iman nag ci naxaw jàppal te li mu lay jox du lu jëm kon da ngay soppi prix bi xam nga li mu la bëgg a wax yonente yi ku ne ñaata yoon la jibril ñëw ci yow kon nay war a firee xus xus takkal ngay wax mbaa mokkalal bokk waaw waaw kay xuus takkal lan ma fol mango adama limub la nga xam ne nasala ci pelu na ko ruuxu jibril al aminu ka di ko ñuul moom la ñu óolu ci muy indi secret bi bët asmaan yi juróom ñaar wàcce wen quatre ans dara sellul dara gënul kenn du farul dara moo doon jëlal adama limub la nga xam ne nasala ci pelu na ko ruuxu jibril al aminu mu rasul mu mu ci pelu ko ala rusuli waxula ala rasuli kon kenn lay doon jam o yi nga xam ne seen mufrasa gën a néew araf seen jam o rasoolu ci la boo nee rasoolu indi waaw mooy benn yonent boo dindee waaw gi tappalaam gi ci siin gi mooy indi ay yonent waaw rusulu rasoolu mooy benn yonent rusulu mooy yonent yépp tel que rusulu te dal naa baadum ala baadu dafa am jam o toujours jam o moo war a ëpp leetar mufrat mufrat mooy kuy doxal kenn jamoo mooy mbooloo toujours nag li ëpp xaaliban jamoo mooy ëpp ay leetar waaye am na ñeenti jamoo yoo xam ne seen mufrat ko ëpp leetar kooku ci la rasulu siin waaw lamara mooy firi benn yonent boo ne ruslu mu firi ay yonent kitaabu mooy firi benn téere boo ne kutubun muy ay téere fiha kutubun qayma wa ma tafaraqa alladina utul kitab illa min badi ma jaabu bayna fii rek nga xam ne alaaj maari moo bëri gëstu xale yi jigéen yi mën ngeen a jàng tubaab day ut kayit ak bindukaay maa kutiba xarra wa maa ufisa farra Maodo tarbiya na leen tarbiya boo xam ne fu ngeen dem tey mën a wax ci rasulullahi loo xam ne ñeneen ci feneen mënuñu ko waxee ngir amuñu ki yeen am cëm dégg naa dégg de Seydou Adama Adama nabi yu la wala rasul maam Adama maam Adama nabi yu wala nabi yu rasul la parce que dafa si am ñoo xam ne nabi yu rek lañu lan bi yaaw cent vingt quatre mille lañu rasul yi ñooy trois cent treize deux cent quatre-vingt-dix milliards neuf cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quatre-vingts la yàlla bind ci ruu tànn ci nag cent cent vingt-quatre mille ñuy seen supérieur mu examen leen tànn ci trois cent treize ñu raw mu def leen seen supérieur mu examen leen tànn ci cinq ñu raw muy seen supérieur cinq yooyu la la la njool màkk raw kon mooy première yi première yi première yi maa ngi laa yit dingal nag tey ne aadama du rasul nabi yu rek la maam aadama bul lim rasul yëpp ba boole ko ci de bon nga juum de du rasulu nabi yu la waaw ah maam aadama nabi yu rek la du rasul nabi yu képp la du rasul rasul mooy koñ na demal ñu waxe te aadama amul ko waxe woon dara nettoo dëkkal xam-xam kay xus jàppal moo kalal lan adama chiffre la nga xam ne nasala ci peelu na ko kan ruu mooy faayili nasala mu ci peelu ko ala rusli ci yonent yi man nag man alaaji Malik urattibu dinaa la ko indil un deux trois quatre lu tax ma def ko noonu kay ajza ngir nga mën a takk bi nasmihim yi ci seen toftale tey ma indil la ko de benn par benn préparé sa kayit nag xus jàppal mokkalal lan adama li mépp la nga xam ne nasala cëppeelu na ko kan roo jibril kuy kooku al aminu mooy ku ñu óolu ko ci ñan ala rusli ci yonent yi urattibu dinaa la ko indil par un deux trois kay aj saa ngir nga mën a takk bi nasmihi mii ci seen toftale ñu ne yow lan la déglu mu adama no
خير موهن ثم موسى لإبراهيم أتوب من غير وتبتلي أبنائها بمجدها أبدا أن المؤمن نطهر الحيام
يا ابن لآدم نور ثم تفاهي نوح ثم موسى لإبراهيم عدوبا وسليا يحيى وابنيا أبدا أن محمدا مطهر عيني يبن لآدم لآدم يبن وللنا النون يبن لآدم نون نون فللنا النون بنون maam Adama déggula yàlla bi muy lim yonent yi li mu wax na bi ina awayna ilayka kama awayna ila noohin ibtidaa yi ruslu yaa ngi dale ci noohin ibtidaa yi lën bi yaa ngi dale ci Adama li ñuy bari bari nag ñeent rek a ci am sariya ñu ci des ñëpp dañuy kóorante yàbbun dix fois maam Adama li muy mat ñëpp am na cent quatre vingt quinze ans quinze douze fois la gis Jibril ci diir bu yàgg boobu. nooy na ko gudd fan waaye noonu rek la ko gis cinquante fois la gis Jibril ket taa boog taa li noox suma Muusa li Ibrahima adduba mi yonti yàlla nooyu noonu pas quatre cent fois Muusa arab dafa riis liitar bu nekk abajada la abcd la livre un la toujours ba deux jim trois del quatre alcoubert cinq waaw six racine sept ablonk huit tatank neuf yenn la dix keef vingt lam trente mim quarante nun cinquante saat soixante ay ndege soixante dix fa quatre-vingt la quatre-vingt-dix xaaf cent ra deux cent sin show trois cent ta tombe quatre cent ñetti tombe cinq cent xadam dellu six cent del jutoy sept cent ta tànk jutoy neuf cent xadam dellu xay ndégal neuf cent sin resu toy mille abajada bi jeex xaj malik nag du lay indil erreur bi ndax gis nga tawil ak kaamil ak basit ak waafir boo xam ne bii dañ koy raxmu mun ci tudde mukk chiffre moo tax muy indi leetar yi mu ne la xus jàppal mokkalal léegi man li ma la yonent bi ku ne li mu gis jibril ñu ne koy jëkk mu ne alama mi maam ñaatoo la ko gis yàbbul waaw yàbbul yaa dix ba deux loo am douze ñu dem fële nooxin yàlla yonti yàlla noox fana mu gudd wa noonun cinquante fois bindal Moussa nag ñabi daan wax ne kadal quran an yakunu mu wasiya tuddatal alquran yëpp di Moussa ca bàqara la ko yàlla dala tudd soo mu dugg rek fekk ci Moussa mu ngi ko tàggoog moom fii ci taati kër gi inna hasa la fi suufi loola suufilu Ibrahima wa Moussa fii ci taati kër gi mu ngi ko jëlee ca ñaay ba di dong dong it moom bu fiil ko cëppil li ma fi yàgg yëpp taa quatre cent fois la ko gis li Ibrahima al Khalil addu ba mi quarante deux fois la gis Jibril même quarante ba deux Moussa quatre cent Noyen cinquante Adama douze ñu ne maam alaaji Malik yaa ñu noonu yaa xaasal barikat ñooñu rekk gisante Jibril mu ne déedéet ñu ne ñu ci desit mu ne ñooñu it xam naa leen di ñu ne naka
فلا تهمي
Yeah.
فعيسى حاد يا عددا وللحبيب كفو ألفا فلا تهن